tey ñu yéneen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale dundal weeru koor sunu dundal weeru koor nag tey ñoo ko jëmee ci sunu téléphone yu ndaw yi ñu gàddu baax na de wax dëgg yàlla waaye nag bari na lool mm, salbiyaat ak ijaabiyaat muy positif ak négatif te it daanaka lu bari ci àdduna noonu lay demee euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mucjisa yi ko sunu borom defaloon taxoon na mu xamoon lu bari ci lii ñëw gannaawam ba taxoon na junju noon junjoon na sunu jamono ji ñuy dund nii muy doxe nii nga xam ne nii neexutoon a wax ñam doon dundandool waaye ñun ñii di ko dund moom neex na noo wax bu baax a baax an abi hurayra radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqumu saa xata tasara alfitan wa yaksuru alkazib wa tataqaarabu aswaaq wa yataqaarabu zaman wa fi riwaaya wa yaksuru alxarj qiila wa mal xarju qaala al qatl abi hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi dañoo wax ne bis penc du taxaw mukk lu dul ne fitna dafa bari ci àdduna fitna ju baree bare sun téléphone yi de ci la nee na itam ay fen day bari am naa sama way jur woo xam ne nii de bi téléphone di doog a génn sama baay boo xam ne nii eh, biñ ko ko indilee mu ne lii lan la ñu ne ko lii mooy téléphone mu ne tuddul te tuddul téléphone teel a fen la tudd teel fen yonent bi sallallahu daal ci teg ne marché yi dañuy taqaloo dañuy jege lool te it wax na dëgg ndax mën ngaa jaaxaan sa lal jënd marchandise muy jar centaine de millions ci sa téléphone bu tuuti ñu indil la ko te doo jóg fi nga nekk. marché moom léegi tey nit ñi bàyyi caa dem ndax li nga bëgg lépp léegi mën nga koo jënd online mën nga koo jënd online noonu na it jamono yi dañuy jege wax na dëgg ndax fi toll ni mën ngaa def ak direct ka nekk fa la gën a sore ci àdduna ngeen di gisante di déggante nga xam ne dagg nañ distance ci wàllu gis ak dégg euh, déegu bari it kenn nattabliwu ko ba tax na ñun ji yépp ñun moom ñu ngi koy dund boroom xam-xam moo tax niñ firee addis bi ci wàllu jamono ju jege mooy jokkale nit ñi ci wàllu wax ak ci wàllu jëflante ak yi nga xam ne nii day déplacer nit ñi déplacement bu gaaw mooy ay avion ay ay train ay oto yi demee noonu kon xam jamono ji ñu toll gis ngeen pays yi nga xam ne nii ñoo ëpp doole ci àdduna dañuy concours sax fi toll ku gën a gaawale ab terrain nga xam ne fi toll ñu ngi tollu ci euh, six cent et quelques kilo six cent et quelques kilomètres à l'heure nga xam léegi tax ñu jot vitesse su avion euh, ak internet ak téléphone yooyu yëpp bokk nañ ci li borom xam-xam yi euh, fire xadis bi kon téléphone xéewal la lu baax la waaye tamit am na ay négatif ndax suñu borom nee na li ma leen defal ci ay xéewal mënu leen koo takk wa in tauddu nihmatallahi la tuxsuha dellu waxaat ne lépp lu ngeen di jariñoo ci ay xéewal rek ci man la jógee wa ma bikum min nihmatin fa min allah mbokk yi kon xéewal gii di téléphone naka lañ ko war a mën a jariñoo xanaa sante ko sun borom ndax moo ne la in shakartum la azidannakum dellu waxaat ne wa in tashkuru yardahu lakum kon nag ngir wut ci ngërëmul yàlla de mën naa nekk ci kaw ñu ciy def lu baax rek te yem ca mën naa jokkale ak mbokk mën naa sàkku xam-xam mën naa seddale ay ñaan mën naa yónnee nit xaalis walla lu koy jariñ yu bari daal yu bari yoo xam ne nii wax dëgg yàlla yu ñu amaloon njariñ la te suñ maam ya daan ci sonn lool ndax mënuñu ko woon a ñàkk te ñun ñuy toog fi ñu toog ci ay segond daal di koy lijjanti kon baax na waaye tamit hmm, salbiyaat yi bari na ci de waaw nañ ko wattandiku bu baax a baax a baax a baax a baax ndax lim ñuy jural ci bàkkaar ak ci àq ak ci yàqu mbokk ak ci ak ci yàq ak diggante ak ni doonee rambaaj moom téléphone rawatina application yi di ay whatsapp ak ay instaga ay instagram ak ay snapchat ay facebook ay youtube ay yooyu nga bëgg bu nekk nga consulter ko boo booleeg bokk ci fukki groupe ak nangam wala fanweeri groupe ya wàcc yëpp nga bëgg di ko teewlu di ci commentaire débat yi am nga bëgg di participer ak yeneen ak di yónnee ay vocal ak di participer yooyu yëpp rek ku ko bëgg a def waxuma la sax sa déggante ak sa borom waaye baaxut sax ci sa wér-gu-yaram am na ñoo xam ne ne boo leen gisee seeni bët dañuy mel ni lu fulu booleeg dañuy waaye di foo leen gis sax dañu mel ne bokkatuñ ci nit ñi te loolu américain yi def nañ ci benn constat boo xam ne ni am na ñoo xam ne nii dañoo dem ba nekk daanaka hors de hors de la société nga xam ne ñoom foo leen gis ñu ngi téléphone waxatuñoo kenn jëflanteetuñoo kenn yooyu nag ndegam ñoom ñoo dem ba gis conséquences yi rawatina ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ kon nañ ci sàkk lu baax yem ca te li ci des waxtu yu ci des ñu koy sànk ci eh, jaamu suñu borom ak fàggu tuyaaba rawatina weeru koor wi di jàng alxuraan di tudd yàlla di jàng xasiida di wax lu baax te luñ ci def lu nekk ñu teg téléphone yi fale ngir mën a wéetal suñu borom tabaraka wa taala ndax ñu ci bari boo dee liggéeyal tubaab rek da ngay fay sa téléphone ndax nga yàq liggéeyam kon nag ku toll suñu borom wax ak